promise? Mm. What's the problem today, no go? Problem, Mafi. Huh? Mafi problem. Mafi problem? Mm. Okay, Babes. Babes, mm. tomorrow, no go business, send our room. Engineer come in Egypt, but in go business. No problem. Mafi muskila. Bas? Aywa. क्या यूं पर राज है partage leen salaam salaam gaay tey daal wax dëgg yàlla xol neexul xol neexul vraiment dama am lu metti lu metti lenn kese la ginnaaw bu procureur du génnee duul ay duulam fen ay fenam ñun sénégalais ñu toog fële ñuy bàyyi waa ji muy fen rek di dem di duul rek di dajale di dem ñu toog di ko seetaan li ma metti mooy sénégalais yi sacrifié nañu le président Ousmane loolu lu loolu mooy lu ma metti lu ma metti mooy sénégalais da ngeen sacrifier le président Ousmane Sonko yéen sénégalais yi a taxaw ne le président Ousmane Sonko boo ko laalee dinaa la dóor yéen sénégalais yi yéen la président Ousmane Sonko meeting ba ca parcelle ba mu laaj leen ndax pare ngeen ngeen ne ko waaw pare nañu monsieur le président mu laaj leen ba ñett yoon ndax pare ngeen. ngeen ne ko waaw monsieur le président pare nañu mu ne leen combat bi saa yu ñu ko tàmbalee amul delluwaat ginnaaw ngeen naan ko monsieur le président pare nañu mu laajaat leen ngeen waxaat ko ba ñett yoon le président Ousmane Sonko teg ci ne leen boo leen boo leen parewul rek wax ma wax leen ma ñu teg mbir yi ci suuf ñu bàyyi mu def lu ko neex ci réew ngeen naan ko mu le président ñun pare nañu pour xeex ci réew mi pare nañu pour combat bi bis buñ ko tàmbalee ñu jël ñu jé génnee Macky Sall ci biir pale bi ngeen naan ko waaw le président Ousmane Sonko engagé ci combat bi nekkoon booleen pare man bi ma paree du tey man maa leen njëkk a pare ñan toog yuuxu foofu noonu yëpp. fo tollu dégg yuuxi yi Ousmane Sonko wax fa lim fay wax ba mu jeexal gaay yi dem ñu ne bërët condamné Ousmane Sonko 2 ans ngeen xex 3 jours 4 jours ngeen demaat wat ci kër yi ñom ñu duggal ci kër yi di japp ay nit di len yobbu ci kasso bi ñu dem ba tey dëmba sa tey démb ñu ne jël nañu le président Ousmane Sonko yóbbu ko tribunal heure bii ñuy wax nii mu ngi tribunal mu ngi ca kaso ba Sonko avant tribunal avant ñu koy yóbbu tëj nañ ko xaw ma vingt trois cinquante deux jours xaw ma cinquante trois jours sénégalais yi mënuñu ko mënuñu dem génnee barkaadir boobu noonu ñu.

ci ay teg diil lañ nekk ci ay teg diil fa lañ ne taal dañuy dem fenn rek dajale ay pono taal filmer naa waaw eh, mbaawa ngi tàkk demaat feneen taal fa ñu ne waaw a ngi takk loolu du xeex bi de taali ay pono du xeex mi ndax Mali bu toogoon rek di taali ay pono kon du ñu wàccee waa ji nu wàccee Burkina bu ñu toogoon di taali ay pono kii Ibrahim mi ñëw toog du toog Niger bii tey jël pouvoir bi bu ay pono rek lañ doon taal lii ñu am duñ ko am léegi nag ci ay teg di lañ ne ah taal nañu fi yónnoo leen ñu xaalis yónnoo leen ñu xaalis sa kenn du fi yónnee kenn dara kenn du fi yónnee kenn dara chaque fois diaspora bi yónnee leen xaalis ngeen lekk ko ne ko fuuf mu jeex ngeen xeex ñaari deux jours trois jours ngeen demaat dellu toog ci kër yi bii moom sénégalais yi da ñun diaspora bi daf ñuy leer na yéen a ngi xeex ñu yónnee leen xaalis woote yi ngeen di woote fii ah yooyu xaalis ma ne kenn du leen yónnee dara gàtt kenn du leen ko yónnee ku mun nal xeex xeex ku na nga dem toog sa kër kenn forcé wul kenn ah kenn for sew fi kenn yéen a taxaw ne Ousmane Sonko seen bakkan ngeen fi teg seen bakkan ngeen joxe. kon ku joxe bakan jarul jarul sa ngay la ngay ngay xaar ku lay yone ak ku la dul yone ci tek dil ngeen ne di taxaw di tali ay pono di filmer demaat ndànk yolos si dem dugaat seni keur japp ne yeen ñi ngeen di waxal ay dof lañu tay heure bi waron nañ japp Ousmane Sonko procureur bi genn def conférence de presse toog foofu di yaataa yumbe di fen ay fenam yéen ñëpp ngeen dem toog di seetaan seen kër ba heure bii Sénégal mënul takk ñëpp ne cal kenn ku ne toog fi nga ne di xool nan dañuy xaar lool lan ngeen di xaar lan ngeen di xaar bu ñu reyee Ousmane Sonko ba ñu jox leen néew bi ñu ne leen léegi dem leen suul ko néew bi ngeen di xaar néew président Ousmane Sonko moom ngeen di xaar yéen. léegi lan ngeen di xaar ci moom lan ngeen di xaar ci président Ousmane Sonko néewam ngeen di bëgg yen néew président Ousmane Sonko ngeen di xaar wala lan ngeen di xaar boo ko laalee ngeen doon wax jàpp nañ ko dugal ko ci kaso bi léegi ana lan lan na lan ngeen di xaarati lan ngeen di xaarati yéen boo ko laalee ngeen doon laaj boo ko laalee kay laal nañ ko ba jëpp ko boo yóbbu ko ba tëj ko léegi ban façon lal ngeen bëgg wala néewam ngeen bëgg sa yu ñu reyee ba pare jol delloo leen néew bi bobu ngeen bëgg nak bëgg jog jaratul jaratu ko bobu xex mom médecin après la mort jaru ko heure bi waraw nañu fekk nu ñëw benn boutique ubiwul vélo sam kenn mënu ko daw ci biir Sénégal vélo la la wax heure bi heure bii waroon nañ ne Sénégal vélo mun mun munoo ko dawal ci biir dëkk bi waaye xoolal oto yaa ngi daw oto yaa ngi circuler normal ñuy yaa ngi dem di xëy normal ki bëgg a voyager voyager ki bëgg a dox dox ku bëgg a dem doxaani dem doxaani ku bëgg a dem defi lu la neex ci dëkk bi dem def ko dëkk baa ngi ne selu mel ni dara xewul ci réew mi réew baa ngi mel ni dara xewul réew maa ngi mel ni Ousmane Sonko mu ngi këram tranquille ci yenn sénégalais yi doon topp le président Ousmane di yuuxu turam naan boo ko laalee boo ko laalee rek sacrifié ngeen Ousmane Sonko da ngeen ko sacrifié waaye amul problème Ousmane Sonko duñu ko rey dina dundu dina nekk ci kaso bi ba luñ ko tëj mu jeex day ñëwaat dànk dugg ci këram dànk tranquille bàyyi combat bi ngeen bàyyi mu bàyyi leen ngeen di torox ngeen di jaar ci géej gi ñu ñu ñu seen Sénégal di këpp ci géej gi ngeen di dee ci géej gi yaa ngi dégg ngeen di dee ci désert bi ay Macky Sall li leen rey yaa ngi dégg ngeen di torox ci biir Sénégal parce que loolu ngeen bëgg loolu ngeen bëgg yen sénégalais loolu ngeen bëgg torox tànge loolu ngeen bëgg. dugg ci ay gaal ngeen dee fa mel ni ay doo ay nit taxaw leen taxaw leen ñu xeex libéré réew mi waxuñu ñu libéré Ousmane ko mais nañu xeex libéré réew mi ndax réew mi kenn amu fi jàmm kenn mun ta wax say besoin kenn mun ta wax sa xalaat kenn mënul wax sa dara kenn kenn kenn ci sénégalais yi ku taxaw ci biir dëkk bi di wax saxalaat kenn ngeen di toog ñuy malmone nit ñi ñuy rey sénégalais di tëj sénégalais yi ci biir dëkk bi kenn mënul fexe bay wax Sénégal lan ngeen di xaar ginnaaw bu ñu jàppee le président Ousmane Sonko lan ngeen di xaar lan ngeen di xaar bu ñu jàppee Ousmane Sonko ba pare dugal ko kaso yéen sénégalais yi lan ngeen di xaar lan ngeen di xaar ba tey réew mi bloqué wuñu ko lan ngeen di xaar ngeen di toog ñenn ñi boo leen woowee ñu naan non dañuy xaar lan ngeen di xaar lan ngeen di xaar kan ngeen bugg mu communiqué wu Pastef ngeen bëgg mu communiqué wu ñu communiqué wu ñu wax kenn bu ci wax nag ah da ngeen bëgg ñoom it waa Pastef génn communiqué wu ñoom it ñu dem jàpp leen dugal leen kaso du fi amee ñoomit ay doomi ay ay ay ay doomi jàmbur comme yéen ni ngeen nekkee ay doomi jàmbur comme yéen da ngeen ragal génn xeexi ñoomit it noonu la ñuy ragalee génn def point de presse ñu jàppale parce que tamit ay doomi jàmbur la du ñu sacrifier du ñu sacrifier seen bopp ngir Sénégal yéen ngeen bëgg sacrifier seen bopp et eh, ngeen bëgg sacrifier waa Pastef ak le président Ousmane Sonko mënul nekk man nu ñu def nii sax d'accord naa ko bu fi kenn génn communiqué wu yéen waa Pastef toog leen seen kër yi ne leen fa cal waaw ginnaaw askan bi moom bëgguñu dara bëgguñu torox tànge lañ bëgg ñoom Macky Sall di leen rey loolu rek lañ bëgg nan toog foofu Macky Sall di leen rey di leen duma di leen di leen rey ba pare dugal leen ci ay gaal sànni leen ci géej gi ne leen ñu doon dem Espagne ak ay ay Italie parce que loolu ngeen bëgg lan moo gën a metti dem jël gaal bi nga xamante ne yow munoo fee nga ne da ngay jël gaal dem Espagne wala Italie taxaw xex sa rew moko gëna neex jël ay gal naan da ngay jëm ay Espagne defo len ko o li ngeen taxaw xexal sa rew way yéen li ngeen ñëmé moy jël gal ngeen ñëmé way taxaw combattre pour la nation lolu mëno len ko am gatché lima doon wax sama live fi ya

jàmbaar man nekkuma Sénégal man nekkuma Sénégal de su ma nekkoon Sénégal du ma live damay génn yow mii di naan toi sort si tu es un nekk garso moo tax ma toog fii di wax